salaamaaleykum mbokku téléspectateur u ATV yi euh, ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay euh, di leen wax tey li nga xamante ni moo ñu indi fii nga xamante nii mooy euh, parkinu oto bi nga xamante nii Euh, mooy euh, parkinu ki nga xamante ni mooy sama xarit bi nga xamante ni moom mooy euh, Abdoulaye pen ñu gën ko xam ci Pène li sabab émission bi nag moo nekk seen business émission bi mu ngi tudd émission seen business seen business nag boo ko déggee mooy képp ko xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu business loolu mooy émission bi moo tax ñu ñëw tey ci parking bi nga xamante ni kii mooy borom parking bi ñu gën ko xam ci euh, Abdoulaye Pen wante wa mbur yëp xam ko ci Pen kër Pen ñu ngi lay ziar Yalla ñu ko Yalla boole waaw euh, Pen ñu ngi lay ziar di la jox sa way di wax tay rafetlu euh, li nga xamanteni mom lañ fi ñëw dox ci moy émission sen business sen business nak liko sabab moy comme li ngay def jaay auto bagage yoy nonu kon Abdoulaye léegi ñu déglu la nga wax ñu sa xalaat ci sunu émission sen business bi ok seen bis seen émission moom vraiment rafetlu nañ ko trop ndax lii moom daa waroon yàgg si am si business oto yi parce que business moom toll na foo xamante ne war nañ ko yaatal mhm. mu génn fépp fépp fépp te gars yi moom vraiment ñi ngi si tànk yooyu. benn bés topp yow moom sama xarit nga di sama lépp yàlla boole ñu ba tax na booy def émission woo ma si damay kontaan pour ñëw waaye sant yàlla fii mooy Touba Darou Khoudoss kër Cheikh Ridial Seck gëm Bamba di daal kontaan nañ si liggéey bi aussi sant yàlla daal ñu ngi si góorgóorlu bokk nañ si ñi ñuyee ñëw si euh, mbuur fii ñuyee ñëw si milieu liggéey bi mhm. mais sant yàlla ñi ñaanal nag ñëpp ñu fi yor parking suñu borom yok len yok seen xewal dafa len dal, dal jërëjëf waaw pen euh, buma ma amee benn question bo nga xamanteni mom la la bëgg poser moy euh, bi nga tambalé euh, business auto yi nga xamanteni naka nga ko tambalé waaw comme niko yenen gaay tambalé rek bu ñëwé indi suñu ben auto, courte courte buñ ko jaayé jël suñu sac def ci li am delu wat suñu borom dañuy yaatal ba tay ñu taxawal li aussi ñing ko taxawal ak suñu mag suñuy xarit su suñuy am di jàmm suñuy rakk ñoom ñoo si jàpp ba affaire bi demee nii daal sant yàlla daal sant yàlla. waaw beneen question bi ma lay posé mooy euh, li nga xamante ni moo ñëw seet si la tey di ATV nekk euh, télé bi nga xamante ni tele dernière génération la ay xale yu ndaw ubbi ko di ci góorgóorlu léegi yow lan ngay mën a wax waa ATV. ñu góor góorlu ba doon euh, seen TV bala ñu góorgóorlu ba doon. bok ci télé yu mag yi parce que euh, euh, ñepp ci ni lañ commencé ba tax ñu doon li ñuy doon suñu borom euh waxul ne tay la wala suba la yow nekkal ci la war rek te boole ko si tek ko ci yoon jubal suñu borom mëna la may lopp lool nonu parce que euh, li li suñu borom di maye pour ñun jaam yi kessa la yalla mëna def tay yeen ngeen dem ba am lopp loolu ba ñu dégg leen sax si biteeg yépp tay loolu lañ leen di ñaanal dal télé bi doon dal télé bu mag mag d' accord euh, tey euh, ki nga xamante ni mooy Pène ñu présenté waat ko gars yi xam ko mu nekk nit ku baax nekk nit ki nga xamante ni tax na jeune mbuur yi nekkoon di taxawaalu yëpp nekk ci business oto bi léegi émission bi mi ngi tudd seen business seen business moom yow defe naa comprendre nga ko. léegi euh, yow tey par exemple ku soxla oto nga xamante ni dafa bëgg a Pène jaay ko oto naka lay def ba ñëw ci pen waaw gars yi nag moom vraiment côté boobu dama siy sant yàlla bu baax parce que ñu bëri boo ne boo ne bu ñuy jënd oto bu ñu dajee benn nit ne ko am naa benn waaju nekk fële bu ñuy wax pen yooyu rek ñoom dañuy sawar kii ñëw jënd oto loolu moom gis naa ñu bëri bu ñu ñëwee dañ naan ma vraiment lañ ma wax si yow doy na ma ba tax yaa may jaay oto moo tax sant yàlla sant yàlla te di santaale gars yi ma ko bokkal parce que ñoom ñëpp ñu ngi jàpp si liggéey bi wa parking bi manam parking bi yow bi nga koy initier yow kese kese yow ya jékki-jékki initier ko wala dafa am ño xamanteni ñom nga associer pour liguey liguey bi non bi ma koy mom euh man ma dem ak sama propre moyen mais aussi ñi nga xam tay ji japp nañ si japp bi moy japp nañ pour affaire bi jall fekk nañ ma si demandé man dañu bëgg and ak man aussi ñi nga and ak man si andet bu rafet waye wax deug yalla ni ma la ko mëna dal ñun ñoko commencé waye ñom duggal nañ seen loxo japp si ba dal affaire yi tollu fi dal waaw léegi kon Abdoulaye Pène xam naa ni comme euh, tey mooy euh, première édition bi nga xamante nii yow da nekk sama xarit nekk sama wóllëre lépp lu may bëgg a tàmbali may bëgg a tàmbaliku ak yow léegi nag kon mi ngi noonu xam naa ni dañ lay jox rek nga euh, sant gërëm dugalaale numéro bi wax kàddu gu mujj gi ndax émission bi du yàgg. du yàgg jërëjëf jërëjëf jërëjëf numéro bi 77 410 87 93. ñu wax ko at ko waxaat ko mooy ñu mel ni sama gars yi ñoo si jàpp mbay ba. Potilay Maam Sarr euh, Mout Diagne ñoom ñëpp daal xaadim du ma bàyyi kenn parce que su ma juumee après su may juum su ma su ma voilà voilà voilà nag tax na daal bu affaire yi tollee fii ñoom la ñu lay xamal na ñun ay jeunes lañ bëgg a góorgóorlu am dara waaye bëgg nañ ko teg si jub bëgg nañ ko teg si yoon di ñaanal aussi ni ma ko waxee woon télé bi dem ba raw ay moromam wala mu dem ba tolloog ay moromam yàlla man na ko yàlla yàlla def amiin kon mu ngi noonu mbokku mbokk téléspectateur euh, ATV yi kon euh, ñu ngi leen di sant leen gërëm di leen wax nii na ñëpp ñëw rek jàpp ci après dinañ leen ubbil suñuy buntu joxe suñuy numéro téléphone képp ku soxla business euh, seen émission émission seen business rek dinañ mën a déplacé wu ñëw ba ci yow bu dee parking nga yor wala leneen lépp luy business rek kon euh, ñu ngi nuyuwaat ñëpp di jaar ñëpp di sant bu baax tamit pen bi nga xamante nii dañoo ñëw place mu yaatal ñu teral ñu tatagal ñu ñu ngi santaat bu baax di ñaan ñëpp am yàgg yokk wér loolay Cheikh Rafal jaa ngeen